inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kii di Massamba Gueye nekk Sénégal diaspora foofee ci Italie moom moo daal ñàkk bakkanam ci accident du travail fabrique foofee ci centre Italie ci fu naan Emilia Romagna kii di Massamba Gueye nag dafa daal ñàkk bakkanam ci bërëbu liggéeyukaay bi mu doon liggéeyee koy jaale nag ay mbokkam ay xaritam ay soppim ay ali jàmm mi nekk fii ci Sénégal rawatina foofee ci Italie di ko jàll ci turu DSV TV ci turu Abdoulaye Sylla mi nga xam ne mi ngi nekk ci Italie ak Alassane Diop ma nekk foofee ci Italie ak man Babacar Diouf mi nga xam ne fii ci Sénégal ñu ngi koy jàll nag ay mbokkam yëpp ak i xaritam ak i soppeem di ñaan nag suñu boroom xare ko àjjana moom Samba Gueye nekk Sénégalais de diaspora foofee ci Italie daal di ñàkk bakkanam ci accident du travail fabrique yal na ko suñu borom xare àjjana te jéggal ko.